commune bi di Dendeye nekk ci département bu Mbacké yi doon organiser ab tournoi de football jagleel ko ndaw yi di yewoo ci dëkk bi tournoi boobu nag ñu ngi ko parrainé Mourtala Gueye di PDG Dendeye Deco Events tournoi boobu doon dox ci diggante Dendeye ak guy gi waral mag ndaw góor ak jigéen yi dëkk ci commune bi ñëpp génn ngir jëmal bis bi waaye it dooleel seen équipe yi ginnaw coup d'envoi bi ci première mi bi ñaari équipe yi joué match bu neex waaye ci la équipe bi dende yi ubbe score bi ginnaaw nag deuxième mi bu tàng jër équipe bii di waa ASC dende yi match bi ci un but à zéro ñu fàttali rek ni final bi ñu ngi ko parrainé woon kii di Mourtala Gueye di PDG dende Deco Events mu ànd ak délégation bu mag ñu gën ci ràññee kii di Mouhamed Mbacké Niang di secrétaire administratif bu ORCAV mu yëkkati fa ay kàddu di rafetlu bi la initiative waaye di sant bi la parrain. Mourtala mii nga xamante ni moo nu fi indi tey ngeen pare ne ko bis bii moom wax dëgg yàlla mën na noo njort ni moom bokkul ci ñi nga xamante ni dañuy daw fan cosaanoo ku gis lii nii war a xam ni Mourtala vraiment ku fonk cosaanam la ku fonk dëkkam la. loolu nag daa doy sëkk jarul jarul yaatal Mourtalla moom ngeen pare na bis bi mais dañ fay ànd ak suñ kilifa kilifa goo xam ne moo nu yilif ci wàllu nawetaan mooy le président de l'ODCAV de Mbacké monsieur Ndiaye si yëg googee nag ngeen am ci talaaga yi moom itam delloo na leen ko ba mu jeex tàkk donc ànd bi rafet na ñu bëggoon bëggoon tuuti ngeen sagal ko moom tamit moom mi nga xamante ni seen doom la moom moom da leen a sagoo da leen a ndax Talla fee mu dëkk lu mu wax rek daal ni Dendeye lu mu wax ni Dendeye ba jël li nga xam ni fa teraangaam nekk muy liggéeyam daal di koy toftalaat Dendeye kon delloo na Dendeye lépp ndax moo ni moo ni moom mooy PDG Dendeye Décor n'est-ce pas donc Mourtala Gueye mii nag man damaa bëgg seenub ànd bañ a yem fii parce que gis nga ndaw su fekkee ni day liggéey yàlla dogal mu cosaanoo cib dëkk màgg maanaam tollagut sax fenn waaye alhamdulilahi rabbil alamin mu jël léppam waat ko waa dëkk ba waa dëkk ba war nañ koo jàppaat bu baax baax te téye ko donc Mourtalla Gueye donc damaa bëggoon ngeen may ko loxo yéen ñëpp nag. Modou Ndiaye Sy mi président ODCAV bu Mbàkke it yëkkati na dafa ay kàddu di lu bile bis. di beral nuyoo ñi nga xam ne ñoom laa àndal ñu jóge Touba jóge Mbàkke accompagné. Euh, Mourtala président PDG Dendey décoration damay xaw taxaw foofu parce que daanaka lu am solo la ci li ñaa wax léegi parce que bariwut ñoo xam ne nii ñu dugg ci ville bi yàlla may leen teraanga ñu delluwaat seen dëkk bokk ko ak ñoom lu xew leen mu nekk ca lu mu yëg ci ñoom lu mu ci man mu faj kon loolu war nañ ko ci félicité di wax waa Dendey aussi ñu ñaanal ko yàlla may ko kàttan dooleel ko ba lu man ren mu man ko déwén ñaari yoon donc li may terminer rek mooy di li invité ñi nga xam ne ñooy organisateur nawetaan yi fii ne leen nañ xool nuñ organiser woo ñu formaliser zone bi am na ñaari possibilité possibilité bu njëkk bi mooy waa Dendey war nañu organiser wu village yi nekk commune Dendey Guy gi yëpp ñu dajee def benn zone suñ ko mënee ñu accompagner leen parce que comme que Dendey Guy gi ci département Mbacké la nekk ñun département Mbacké ñoo gën a néew ay zone yoo xam ne ci yeneen communes yi la fépp fu ñu dem dinañ leen invité ci loolu bu munul nekk ba munul nekk loolu nga xam ne ni peut zone bu nekk war na am sept ASC minimum su munul nekk mën nañ am possibilité ñu intégrer ay ASC ci zone Dalangaabu parce que zone Dalangaabu ODCAV Mbàkke la bokk te ñu ngi compétir am na ci yeneen yoo xam ne nii ASC dëkk yoo xam ne nii dañu organiser bokk Dalangaabu bu doon benn la wala muy ñaari ASC e, ñu organiser wu am ay licence di jouer dalangaabu ñu orga ñu ñu organiser leen ñu fay jouer ñoom à leur maintenant à leur niveau si dala euh, si si Dendey ñu organiser seen nawetaan ñu accompagner leen benn at ñaari at ñu xam yoon bi ñu bàyyi leen ñu dem ak seen bopp parce que dalangaabu noonu la loolu lañ ko def am na dëkk yeneen lañ ko def. loolu véritablement maa ngi si invité ñi nga xam ne ñooy organiser nawetaan yi ñu jege ñu ñu waxtaan si loolu parce que fi ñu toll nii mooy euh, jour mën na jóge n'importe quel village n'importe quelle commune kaawu euh, Sadio Mané kaala la boo xam ne ñun ñëpp war nañ ko bàyyi xel parce que village ba mu dëkk mën na am sax ëppul doole déndey te pourtant fa la génnee ci nawetaan jaaree fa ba tey nekk international di sagal sénégalais yëpp kon il faudrait que ñu organiser wu xool nuñ def ba nga xam ne nii euh, li mu wax léegi dina mën a nekk dinday am zone waaye ginnaaw loolu kii di parrain bi di Mourtala Gueye yëkkati dafa ay kàddu di encouragé waa dëkk bi surtout ñaari équipe yi te di wax ni lii mu fi jot a indi ci ay maillot ak ay ballon yu takku xeeb na ko lool. maa ngi nuyu sama mbokk mbokk yi ma fi fekk yëpp. di rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax di am mbégte ak contentement bu baax ci jàkkaarloo gi ma jàkkaarloo ak yéen. aussi avant tout maa ngi nuyu le président Ndiaye si ak le président ma Mamour Sarr ak mboolem ñi ñu àndal ñëpp ndax su ma leen tuddee ñoom ñaar rek muur naa ñi ci nes bi ñëpp. Euh, kontaan naa ci ñoom ndax ñoo sama ay kilifa ci wàllu secteur bi ñu nekk bi ma leen woowee surtout grand ñaa wax ko mu coordonné lépp. ñu bàyyi seen ay yitte ngir ñëw taxaw ma épaulé ma ba yàlla dogal ñu am réussite bi tey kon lépp maa ngi leen koy sant di leen ñaanal yàlla sàmm leen taxaw leen. aussi ñu ngi nuyu bu baax mboolem village yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bu Dendey muy waa Dendey muy Guy gi muy Sàmm muy Pade muy Njolofeen muy euh, nu mu tuddati Ngeeraan ak mboolem village yi nga xam ne ñu ngi nekk biir commune bu Dendey yëpp. maa ngi leen di tàllal doxoo di leen nuyu di xam ni seen doom seen jarbaat seen mbokk seen rakk moom moo nekk di wax ak yéen. di leen wax sànq rek dama dégg si biir wax ji ñu ni euh, waa Dendé ñu ngi sant bu baax waa guy gi ndax dañ leen a yaatal non non ñoom lépp benn la benn kër gi la. Dendé yi guy gi lépp benn kër gi la man mii di wax ak yéen élection bu jotee chaque élection guy gi laay voté. loolu kenn mus ko xam ci yéen man guy gi laay voté chaque élection parce que mbir bu la ñoree daf lay ñor ñun amuñu lu dul dénd yi amuñu lu dul commune bi lépp lu ñu man suba ba ngoon su ko suñu doole su ko matee dañ koy def suñu doolee su ko matewul suñu kàddu mate ko dañ koy wax. tey personnellement tey am na ñoo xam ne su ma leen jotoon téléphone ni leen Moutada Seul. duñ xam ban Mourtalla mooy wax mooy wax nag xaj na suñu borom moo ko def. mu yokk si nii dina taxawaat suñu defaraatal leen seen terrain bii clôturer ko waaye it fexe ba dooleel nawetaan fii ci commune bi di xamal ni aw lu dul yéen ndax ñun ay gone lañ di yëngu te dañoo gëm ni Sénégal mënul développer tant que dugaluñ suñu loxo bu ndaw bi kon yéen jeunesse yi yéen laay waxal. ak lu mën di xew na ngeen xam bu baax fi ngeen teg seen tànk xam seen bopp xam nga des fois dañuy wax gëm seen bopp mais boo gëmee si bopp sa bopp réer ni da ngay xam sa bopp xam yow yaay kan bu la kenn dugal si loo xam ni naka su du noonu wala kenn da dugal si dara ñàkk fay te liggéey rek moo am sax wërsëg yamul mais kenn ku nekk am na lu suñu borom dogal ci yow am na suñu borom jagleel ci yow ak lu mënti xew bul ñàkkal sa bopp fayda xamal ni liggéey moo la ñor te jeune benn jeune bu nekk dafa gëm ni Sénégal développement wu Sénégal ci loxoom la nekk waruñu am jotu nelaw ñu am jotu taxawaal ñu am jot jotu leneen lu dul liggéey pour suñu avenir liggéey pour avenir réew kon dama kontaan ci yéen ndax biñ ma woowee wax ma dama ni leen amul lenn lu may def lu dul ànd ci ak yéen parce que xale la bokk naa si ñi fi gën a nekk gone yàlla dogal seen xel dem ci man loolu teraanga la teraanga boobu du ko delloo te li ma def nii xeeb xaj na mën nañu wax ne première édition la mais dañuy ñaan yàlla comme que président Ndiaye si ñëw na muy président de l'ODCAV su ngeen paree ngeen jël ay coordonnées xool parce que fii dafa war a am zone boppam pas ngeen dem sax di bokk ci yeneen zone mais fii war na mën a génn lépp seen ASC war nañ man a am seen zone bopp organiser seen ay navétanes te incha allah à partir d'aujourd'hui lépp lu ma mën ci kilifa yi danañ dox ba ñu collecter leen terrain bi incha allah rabbi ndax te it bëri na tey zone rurale booy dem dëkk yu bëree bëri collectif na seen ay terrain te fii moo leen ëpp ay population fii moo leen ëpp njëriñ ci réew kon ñun lépp luñ ci man kilifa guñ ci xam dinañ ci waxtaan ak yow bu soobee yàlla ñun ñu ngi seen ginnaaw ñu ngi leen di déglu ñu ngi leen di tàllal loxo fu ngeen ñu woo ñu leen incha allah jërë ngeen jëf.